aousubillah min shaitan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk nuru daara ni Touba ca kanam seen mbokku bi Khadim Diouf moo leen di ziar fas yéene leen indil bilan mensuel bu mois de novembre ñu ngi ziar sëriñ Mountakha Bachir di ñaan yàlla mu yàgg suñu kanam lool ak uh, sëriñ Abibou sëriñ Abdoul Fatah Gueye ak kilifay yi Touba ci kanam yépp uh, kon ci weeru novembre Touba dugal na 41 millions 96 mille 559 francs Dakar ci njiital Baye Serigne Bousso ci taxawaayu Alaaji Ndaw dugal na million millions 600 mille cent francs Orange Money bi ci dièse 144 vingt 621 dièse dugal na 3 millions 574 mille 304 francs Tigo Cash ci 76 268 28 28 dugal na 351 444 francs Bambey ci jiital sëñ Abdoul Fall dugal nañ 200 000 francs euh, Mbacke ci njiital soxna Adja Dior Gueye euh, sëñ Mama Fall soxna Koumba Ndiaye euh, dugal nañ 814 000 francs Diourbel soxna Ndey Ndiaye sëñ Alaaji Fàllu Ley dugal nañ sept cent cinquante mille francs Kébémer ci njiital Serigne Gora Sylla dugal nañ cinq cent deux mille francs Kaolack ci njiital Serigne Babacar Mbacke mu kabaru ci taxawaayu sëñ Moustapha Touré dugal nañ million de francs Mbour ci njiital Serigne Mor Sourang dugal nañ sept cent soixante seize mille cinq cent francs Thiey Thiey ci njiital soxna faatu Jabaay dugal nañ 34 000 francs Louga ci njiital sëñ Moustapha Bachir Mbuub dugal nañ 1 million 106 000 francs ci les Dramane ci njiital sëriñ Moustapha Silla dugal nañ 50 000 francs Goudiri ci njiital sëriñ Dame Ba dugal nañ 400 000 francs daayira Babul Ayadi bu Añaam dugal nañ soixante quinze mille francs Kolda ci njiital Serigne Moussa Sène dugal nañ cent deux mille francs am na jaayante boo xam ne Serigne Maam Thierno Mbacke moo ko dugal mu toll ci un million un million de francs am na it ay versement anonyme yoo xam ne seen borom xamuñu leen ñoo xam ne dañuy jékki-jékki rek dugal ci compte bi mu ngi toll ci un million cinq cent soixante sept mille cinq cent trente huit francs ngaay ci njiital soxna Maguette jiite ñoom dugal nañ cent quarante mille francs Tamba ci njiital Serigne aadama Niass versé nañ quatre cent cinquante mille francs Ross Béthio ci njiital Serigne Alioune Ñing ñoom it dugal nañ cent trente cinq mille ci weeru novembre Bokki Jaawe Bokki Jaawe ci njiital Taalakan dugal nañ soixante quinze mille francs Vélin Ngara ci njiital Serigne Mbacke Guèye versé nañ soixante-dix mille francs Koungheul ci njiital Youssou Sourang dugal nañ deux cent cinquante mille francs Boustane ci njiital Soxna Naar Diaw dugal nañ quarante-trois mille francs Kujaan sëñ Ibra Ñang bu Kujaan dugal na dix mille francs ci njiital Serigne Modou Thiam dugal nañ cinquante mille francs Joal ci njiital Serigne Bassirou Thiaw dugal nañ cent cinquante mille francs Soxna Soda Diop dëkk Touba Belel eh, versé na cinquante mille francs commission réalisation facture bu dellu siwaat ci compte Touba ci kanam ñu wàññi leen ci deux cent quatre-vingt mille cent cinquante moom lañ dugal noonu ci biir banque bi donc bu ñu xoolee li nga xam ne yëpp dugg na ci mois de novembre day toll ci cinquante huit millions sept mille sept cent quatre vingt quinze francs cinquante huit millions cent quatre mille sept cent quatre vingt jamono yi nag ñu ngi doon yëngu bu baax ci wàllu éclairage public bi noonu la amee ay làmp yoo xam ne Touba ca kanam daf ko wut ngir ñu leeral buntu kër yépp làmp yooyu nag euh, ci weeru novembre 3 millions 101 mille francs dugg na ci biir compte yu Touba ci kanam bàyyi ko ci éclairage public waa bitim réew Europe Espagne ci njiital sëñ Malick Dieng versé na 2 millions 984 mille 250 francs France ci njiital Serigne Mourid Ndaw versé nañ 281 mille 500 francs Italie ci njiital coordination bi versé nañ huit millions deux cent quatre-vingt-six mille huit cent dix-huit francs coordination coordination Italie bi nag mën nañ cee tudd Baye xas Diop sëñ Abdourahmane Diop ak Baye Serigne Diop ñooy ñi yilif liggéey bi ci Italie ñoom verse nañ nañu huit millions deux cent quatre mille huit cent dix-huit francs Allemagne ci njiital Serigne Abdou Salam Faye ak daayira Bayern bi yëpp versé nañ quatre cent trente mille neuf cent soixante-quatre francs su ko defee Europe yëpp buñ boolee li ñu versé day toll ci onze millions neuf cent quatre-vingt-trois mille cinq cent Europe ñu ngi leen di ziar bu baax di nuyu baay Serigne Gueye mi jiite sous commission bu Europe. ñu dem ci zone Asie zone Asie nag mooy dëkk yi fare sow jant ñu mën cee tudd Australie euh, ci njiital Serigne Amady Wade Australie verse nañ cinq cent mille neuf cent kon zone Asie mois de novembre versé nañ 588 mille 900 francs zone Amérique zone Amérique euh, ci njiital sëñ soe bu Seck ñu ngi nuyu waa États-Unis yëpp Argentine ci njiital Pape de Sey versé na 476 mille francs 476 euh, mille francs yooyu ci weeru novembre bi mooy versement bi continent Amérique versé ñu dem ci zone Afrique zone Afrique ñu ngi ziare président sous commission bi di sëñ Khadim Thian Afrique Cap Vert ci njiital sëñ Abdoulahat Amar versé na 319 700 francs Congo Brazzaville ci njiital Alaaji Diouf versé nañ 235 000 Afrique du Sud ci njiital Serigne Mor Dieng verse nañ 750 000 francs Côte d'Ivoire ci njiital sëñ Thierno Ali Ndiaye sëñ Mor Faasa ak sëñ El Hadji Serigne Ndaw versé nañ trois cent soixante mille francs Mali ci njiital sëñ Alioune Wàcc versé nañ quatre cent dix neuf mille cinq cent francs loolu yëpp bu ko boolee total zone Afrique li ñuy versé ci weeru novembre day toll ci deux millions quatre vingt quatre mille deux cent francs Afrique versé na ci weeru novembre deux millions quatre vingt mille deux cent francs suñu boolee nag total encaissement yëpp li dugg ci euh, biir réew mi ak euh, ci bitim réew mi yëpp buñ ko boolee ci weeru novembre bi day toll ci 76 millions 938 mille 427 francs 76 millions 938 mille 427 francs ginnaaw bi ñu limee encaissement yi nga xam ne dugg na ci biir compte Touba ci kanam ñuy nag dañuy dem ci décaissement yi ñi nga xam ne génn na ci weeru novembre ci compte Touba ca kanam euh, ci décaissement yooyu nag xam naa li ci ëpp ci ay chantier lay dem chantier bi nga xam ne moo nekk euh, Kër Gol poste de santé bi daanaka pare na ay finition yu ndaw ci lañ nekk boobu ci weeru novembre dép dépensé nañ ci un million six cent vingt mille cent francs chantier bi nekk Boberel moom ci phase terminal la nekk poste de santé boobu daanaka li ci des bëriwul ci weeru novembre moom it ñu ngi ci dépensé 9 millions 919 mille 230 francs 9 millions 919 mille 230 francs am na tamit ay frais yoo xam ne ñu ngi ko def ci euh, wàllu reboisement maanaam lépp lu jëm ci wàllu garab yi nga xam ne Touba ca kanam mi bëgg naatal dëkk bi di ko jëmbat ci biir dëkk bi ñu ngi ci dépensé lu toll ci un million trois cent trente sept mille quatre cent cinquante ci weeru novembre. Euh, suñu chantier bi nga xam ne jël nañ ko université ci ndigalal Serigne taxa foofu tamit euh, liggéey bi ñu ngi ci avancé bu baax weeru novembre bi dépensé nañ ci quinze millions six cent quatre vingt deux mille francs quinze millions six cent quatre vingt deux mille francs. Euh, chantier Daaru Xadim moom it ci la bokk moom it mi ngi avancé bu baax. dépensé nañ ci cinq millions cent quarante six mille quatre cent soixante dix huit francs ci poste de santé Daaru Xadim euh, waa massification ci weeru novembre ñoom it def nañ ay euh, jéego ci wàllu communication euh, ba dépensé nañ ci weer wi cinq cent mille six cent massification budget bi nga xam ne def na ko ci gàmmu ak fonctionnement yi mu def ci biir novembre yëpp bu ñu ko boolee lépp mi ngi toll ci cinq cent mille six cent francs commission communication ci mois de novembre dépensé nañ quatre cent cinq mille francs euh, Kër Gol poste de santé ba am na terrain bu mu jàkkaarloo loon euh, bi kuréel gi xoolee xam ne dinañ koy teewoo ca kanam euh, ñu daal di koy jënd ñu ngi ko jëndee deux millions mu jàkkaarloo ak poste de santé bu Kër Gol. am na yi tamit ay don yoo xam ne nii waa bitim réew yu ñokkul ko lijjanti ba mu ñëw moo xam ay ambulance wala ay matériel médicale yoo xam ne jógee na bitim réew ñëw biir Touba frais de transport yooyu ñu ngi ciy dépensé 4 millions 539 mille 175 francs 4 millions 539 mille 175 francs kon euh, bu ñu jógee ci loolu boole ko ak euh, total budget de fonctionnement bi nga xam ne mooy yi nga xam ne chaque fois day am moo xam charge fix la wala carburant wala yenn jumtukaay yi nga xam ne mënta ñàkk ci liggéey bi suñu boolee budget de fonctionnement bi yépp ci weeru novembre mi ngi toll ci 3 millions 463 mille 205 francs 3 millions 463 mille 205 francs su ko defee loolu dafa ñuy permettre ñu mën a xam euh, total décaissement yëpp ni ñu xamee lépp ni mu li dugg ni mu toll li génn tamit lépp bu ñu ko xaymaa day toll ci 44 millions 613 mille 238 francs total décaissement ci mois de novembre mi ngi toll ci 44 millions 613 mille 238 francs waaw gannaaw bu ñu xamee décaissement yi ñu def yépp ci mois de novembre sold bi ñu amoon ci mois d'octobre mi ngi tolloon ci cinq cent seize millions cent vingt-neuf mille cent quarante-six francs cinq cent seize millions cent vingt-neuf mille cent quarante-six francs solde boobu nag ci weeru novembre mi ngi toll ci cinq cent quarante-huit million quatre cent cinquante-quatre mille trois cent trente cinq cinq cent quarante huit millions cent cinquante quatre mille trois cent trente cinq francs kon loolu mooy li nga xam ne nekk na ci biir compte Touba ci kanam ci weeru novembre. kon ñi ngi sant ñëpp ñuy jàpp ci liggéey bi jërë ngeen jëf.